jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su tey ñu ngi fii ci Parcelles Assainies unité 7 seeti fi xale bi nga xamante ni démb vraiment waneti na boppam ci wàllu làmb waneti na boppam ci yaakaar bi nga xamante ni njabootu làmb am nañ ko ci moom rawatina fi nga xamante ne fa la dëkk muy diggante Diofior ñoo joor Fimela dëkk yi nga xamante ne daf koo wër am ci moom yaakaar mu bëreeg démb ki Yékini daan ko jël bu amul benn werante kooku mooy Ibou Ndiaye alias Obali dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan mbër nuyu naa la siyaar naa la. siyaar naa la sëñ Jibi nuyu naa la ginnaaw bi ñu santee yàlla ñu ngi jug si yonent bi sant suñu ñaari waajur. Hmm. waaw di sant adduna di sant Sénégal di sant ñëpp. di hmm. gërëm ñëpp vraiment. dem hmm. reer nga. waaw reer naa kay. reer démb moom xam naa reer bi changé na moom. non changé wu sax li ñu daan reer rek cere meew booy bi sax moom ma ko jëndal démb. cere ak meew moom ngaa am ndam di lekk cere ak meew. loolu du ma ko def ñu may yab. cere ak meew cere ak meew ngaa lekk démb de. Ah. bi ma ñëwee dama rek def si cere dóor ko tëdd. Hmm. Mhm. Euh, démb ñu ci bari ci làmb ji. Mhm. yow la joxoon favori. Mhm. mais ci favori bi ñu la joxoon ñu ci bari xamoon nañ ni Pape Yékini macha allah ndaanaan la ci làmb mhm. mën na xeex bëri na ndaanaan bu nekk ci làmb mhm. bi nga ñëwee ci digg géew bi mu simmeeku nga simmeeku mhm. gis état de forme yi yéen ñaar ni ngeen tool jàppoon nga ni noonu nga koy daane non man ku du Pape Yékini sax démb bu ma ko jàppoon dama koy daan lu tax parce que samay mbokk dañ maa waajal séeréer dañ maa waajal bu baax a baax a baax démb ku du Pape Yékini bu taxawoon bu ñu taxawoon si biir géew bi dama koy daan loolu dañ la wala dañ la ko dee wala confiance bi. non dama ànd ak samay mbokk rek dama ànd ak samay mbokk xam ne ñoom tamit caaxaane wuñu combat bi te man tamit euh, musuma toog jéeg yow yor nga sama numéro da ngay fii samay statut man damay hmm. entraîner rek. Hmm. waaw damay entraîner musuma toog xaw ma euh, ñàkk corona wala yaa ngi vacances man damay entraîner matin au soir. Hmm. waaw damay entraîner chaque jour que jëfee damay entraîner moo tax man jàpp naane ne képp ku ma taseel rek. man sama sama liggéey ak sama ngëm-ngëm damay jàpp ne man maa ko mën. waaw. arbitre bi sifflé euh, Pape Yékini féete càmmoñ. Mhm. Ibou Ndiaye féete ndijoor. Mhm. arbitre bi sifflé ñëwoon ma ci combat bi. waaw dañoo di ko nuyu nag euh, champion boobu noonu Pape Yékini. Mhm. maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm. xam nga di ko naan di mbër làmb ga rek parce que ñun ñëpp ñoo far. jàmbaaru dafa utsi woon suñu borom moo ko daan may daf ko xañ bi pa may ma. waaw arbitre bi mu sifflé man ak moom dañoo taxaw. parce que loolu lañ ma conseillé. waaw du ma ñëw rek saax saaxee sama combat parce que démb da nga gis gis nga public bi topp sama ginnaaw. waaw stade bi fees dégg. kon aw ma woon droit def erreur. waaw parce que tamit comme ni nga waxee dama bokk si ñi làmb yaakaar. bokk si ñi séeréer yi yaakaar. pour ñu taxawal leen suba. Mm-hmm. kon du yoon arbitre naan prip may ñëw di saax saaxee combat bi damay jël sama temps teey mm-hmm. bi ma demee nag ba xam ne instant bii nii nii heure euh, dem jot na. Mm-hmm. ma dem xamoon naa ne bu ma ko jàppee rek xam bu jeex. non da ngeen di léetoo ma jékki-jékki gis Pape Yékini dóor la benn arrêt de droit. mu mm-hmm. dal mu mm-hmm. dal ci sa R4 bi. Mm-hmm. coup boobu laa bëggoon xam bi mu la dalee nan la la def. waaw coup boobu na ma dóor na ma benn coup bu dag démb. daf la dóor ba ah. gàllaaj yi nekkoon sa bopp bi sax dañu naaw. waaw daf ma dóor coup bu dag parce moom ku ko gis xam ne moom moom ji koy kàddu gi nga yor moom foo mm. jaar di ñam. waaw te man ñam naa démb door na ma coup bu dag ba mu wóor ma ne coup bi dag na mais coup bu muy dag dag maa ngi si biir làmb ji mm. waaw parce que damay entraîner. Mhm. damay entraîner dama am résistance. Mhm. waaw nit nag boo ko yabee daa fekk jàppante woogan rek. Mhm. waaw moo tax bi coup bi dagee ma taxaw xam nga gën a gëyoo toog moom xam naa nag moom si biir xelam jàpp na ne kii. dafa kaawoo wala coup bi ma ko dóor so eh, yëg na ko. te coup bi ferejewu ma sax. moo tax bi mu ñëwee moom tamit dóor naa ko fa benn coup. boo xoolee bi muy at bi muy song si di ñëw. coup gaa ko jox dama ko dóor coup ba mu siggi ma Mm-hmm. waaw dama daw uh, dóor ko ku ba mu jóg ma paqueté ko braqué ko. Mm-hmm. waaw yéeg ci kawam. moom ban erreur la def yi Pape Yékini bu mu warul woon def. Mm-hmm. ba nga ba nga yegg ko fu sori foofu ba mën ko daan. non pourtant nag Pape defu erreur Pape bëri na. bi mu war a def na erreur parce que gis naa ko muy xeexee deux pieds. parce que bi muy xeex. waaw ñaari tànk yëpp ñu ngi fekkante. moom bi mu xeex sax dara baaxu ci. moom laa lay wax. waaw moom Pape dèjà bi mu xeex dara baaxu ci Pape mm. Yékini. xam nga moom xeexam fu muy gën a fooree si xeexam. Hmm. mooy ngeen jàppante korante. moom hmm. foofu goxo bi day dox. Hmm. mais boo ko ba boo ko xañee googu bu ñëwee nii di dox di xeex. ay gauche droite yi muy dóor yooyu tegu ko fenn day sono boppam te du dagg. te man ay direct gaa ko doon dóor. waaw man dama koy natt ba mu mot ma dóor ko direct arrière mel ni ku ko ragal. ba ko combat bi. waaw ba mu dem nag ba am confiance. pour ñëw. ma dugal ko ku ramasser ko lamb bi jeex. Hmm. waaw benn moment gis naa arbitre bi. Euh, àtteeg di leen woo ci digg géew. Mhm. mu tàllal arbitre bi loxo ne ko da war a dem arbitre. waaw mu ne arbitre bi kii dafa war a dem arbitre parce que mu ngi naaj ci affaire yooyu noonu mais. loolu noonu xam naa ne moom dafa bëggoon mu bëgg a récupérer tuuti rek parce que foofu nàcc ma fa nàcc bu war a mun a tax may dem at mais génn na waaw tuuti rek deret génn mais du comme arbitre yi tey bi mu génnee dañu war a atte combat bi waaw donte tuuti la dañu war a atte waaw mais arbitre yi si jëm boppam tey hmm. bu ñu gisoon ne gi c'est méchant wala c'est dangereux hmm. dañuy arrêté combat bi waaw mais arbitre dañoo xool gisuñu affaire bi kii moom instant boobu noonu moom moo doon gis yooyu hmm. waaw xam nga rek dafa doon ut fu mu jafanu quoi. Hmm. loolu kese la après nag si la ko arbitre bi nee noo bëreel. Hmm. waaw si lañ bëri nag suñu borom may ma ndam si kawam. Hmm. bi nga daanee Pape Yékini moment bi nga ko daane yéeg ci kawam moment boobu lan nga yëg loo sentir sa xel ci lan la njëkk a dem. sama xel si li mu njëkk a dem mooy ñi ma war a bëreel du kii rek du ki ma daan ni barki alxuraan sama xel si loolu la dem ki ma daan nii nii du ñii laa war a bëreel. waaw moo tax nag bi ma ko daanee ba pare ma dem ñëw samp jël sama dënn samp ko si digg géew bi. Hmm. laaj ponka gi. ponka gi ñooy ñaan. ponka gi mooy ñi fi ne parce que yow jéeg xam nga ne samay morom duñ ma jël. non ñan ñooy sa morom ñoo xam ne war nañ laa mën a jël. waaw man diggante ay Balla Gaye Bombardier. gaa yooyu noonu non xam nga nag c'est day xam lekkam. <laughs> Bombardier Balla Gaye duñu bëre ak yow. da ngay wax say nattaangoo mais lu tax duñu bëreeg man. waaw parce que dañu la raw ci làmb fi ñu toll tolloo fa. moo yow affaire bi léegi nekkatu làmb ji léegi business ga. yaa ngi encaissé comme vingt millions wala quinze millions. déggoo ma de ñoom nañ encaissé nañ encaissé cent millions man ma encaissé vingt millions sama vingt millions yooyu man dinaa si préparé wu ba mun leen daan ak seen cent millions yooyu. loolu moom ci kanam la loolu moom mu ngi ñëw ci kanam. moo sa adversaire nii ñoo xamante ne bu leen promoteur bi woon wala waa rent DKR seen prochaine journée bëgg a ëbbali mu bëreel leen. ñan lay doon. non sama morom du samay morom yow xam nga ne samay morom tey amul sama benn moroom buy ñëw dugg seen biir kër ne avance obbo gi mu ngi nii moom ngaa indi gars yi duñ ma jëg barki arxuraan karim doo dégg benn mbër bu taxaw ne jox gañ ma obbo du ma fi gaaj nag benn booy. doo ma limal ñett rek. non du ma xool ñett ñi. waaw ba xam ñeme nañu obbali waaw wala de ñett mbër. non du ma fi gëm kenn barki arxuraan du ma gëm parce que koo fi gëm day jàpp ne non moom comme am na ay quinze combats wala am na ay 13 combats nangam te yow amal 20 combats mënoo indi lu ma du indi stade yow gis nga stade ba démb lu ma fa indi say supporter démb séeréer yi muy Marseille yi dawakatu sareet yi Diofior trois bis ñoo fa jóge ak oto yu ndaw yi ñëw yow gis nga démb li ma indi si public mhm. Parcelles tamit gars yi ñëw kaar yi fii jóge fi ñëw démb yow yaa ngi gis stade bi mhm. stade bi démb cet ba cet barki alxuraan amul benn mbër bu ma fa ëpp a supporté. Hmm. nit ku nit ku nit ku mel noonu te bu ñu bu démb gis nga cosaan bi ñu indi. Hmm. démb démb démb gi ñu indi si si si si si si aaru gàmb. boo gaa yi gisatuñ ko woon parce que ñi dañuy ñëw di gis mbër yi ñii di soog ay mayo. Hmm. ñii di def ay affaire mais démb tey ah ba bàmmeegu bàmmeegu mbër yu mag yëpp. ancien guwaar yëngu na. xam nañ ne am na ku ngeen fi nekkal am na ku ngeen di représenté. waaw moo tax nag ma rendre leen hommage. Hmm. ma rendre hommage comme suñu papa yi ñoom duubagees xam nga suñu papa yi ñoom euh, Lac de euh, ñoom kii nu mu tudd sax ñoom Père Baga. Hmm. xam nga euh, suñu papa ñoom mbër yu mag yëpp ay ñoom faa bi féeréer. Hmm. xam nga ay ay ay ñoom docteur Faye. waaw ancien gouwaar yooyu noonu tey ay ñoom Ousmane Debroog Diofior. waaw di ko ñaanal jàmm. paa yooyu noonu ay ñoom mànga hmm. waaw ñoom yax Jóob yi ki hmm. nii maanaam magu gàmb yi hmm. ñoom ngaa ñoom ngaa dekk ñoom ngaa rendre hommage démb démb gis naa ñaar waaw li njëkk mooy dékk naa la sama micro nga gërëm Yaxya Jóob yi ki nii waaw gërëm noonu pour bëgg mu jàppalal wala vrai Yaxya Jóob yi kii nii daa jàpp ci combat bi waaw mais gërëm noonu pour bëgg mu jàpp mu jàpp des fois nga gërëm ku la defalul dara déedéet waaw moom mënta nekk barki alxuraan kër yi man. wala nga gërëm koo xam ne. jéegi man ñàkkuma jéegi man ñàkkuma fayda de te du ma fonctionné noonu di gërëm koo xamante ne nii tey amoo amut ak yow affinité waga gi jëntiwu ga mhm. mais pour lan ngay toog si ay caméra di ko gërëm ñàkk fayda weesu ko ku ma dem bay gërëm rek c'est parce que daa am go participer si sama sama carrière bi jàpp na waaw Yaxya Diop maa ngi koy sant bu baax non jàpp si si dara sax mais jàpp na si maanaam si conseil ma ñaana ma déggante ngeen téléphone waaw déggante nañ téléphone. ban jour ngeen déggante mu ñaanam non yooyu yëpp amul solo. waaw ah, bëgg naa xam ban jour ngeen déggante ak déggante bi lan la la wax. non yooyu yëpp yooyu amul solo daf ñaanal rek conseiller ma ne ma boo demee nanga def fulla ak fayda. Hmm. xam nga yàlla na yàlla taxaw. waaw ñaanal na ma conseiller na ma man tamit ma ñëw def loolu démb xam naa li nekkoon sama ginnaaw yëpp. moo tax hmm. aw ma woon droit def erreur. Hmm. waaw xam naa nekkoon sama ginnaaw aw ma woon droit def erreur. ancien gouvernement yi tamit ñëpp séeréer yi. waaw gis naa seen taxawaay si man ñu jàppale ma xam nga ñii digga tegtal ñii digga naan dema fii ñu taxaw ma hmm. waaw parce que euh, am nañ cofeel si man hmm. moo tax dem ma ñëw rendre leen hommage ñëw indi weneen koo xamante ne nii tey gisatoo benn mbër fii gisoo fii benn mbër bu ko fi indi hmm. waaw démb mu mel ni parcelle mbooloo dem nañ seen première sortie démb yaa ko ubbi mu nekkoon combat boo xamante ne ñoom ñëpp dañ ko soxla gis naa fa euh, Moussa Dioum xamante ne mooy seen kilifa yéen ñëpp. Mhm. mu indi la en masse. Mhm. nga indi fa ndam. Mhm. ndam loolu actuellement parcelle mbooloo. yeneen xale yi war a bëre. lan nga leen parcelle mbooloo sama gars yi ñoom Ondinga ñoom Moussa xam nga ñoom euh, ñoom sama booy yi gars yi fa nekk parce que parcelle mbooloo ay xale yu ndaw a fa nekk. di entraîné gëm seen bopp ñun amuñu ay tëdd fi ak ku ñu ku jiite suñu grand Moussa Dioum daal dañ ne si ginnaawam ñun ñëpp di ko déglu. dem ñu ñëw ànd xam nga ak suñu président écrit paa yëpp ñëpp ñëw jàpp si ñu ñëw taxaw xam nga ma def fuga ak fayda ak jom suñu mm. borom sutura ak may ma ndam. Mm. waaw démb moom maa ngi gërëm démb moom gis naa seen taxawaay si man waa Parcelles Mbogo. Mm. waa Parcelles tamit 1 ba 26. particulièrement su ma waa koñ fii waa Inteset. ñoom tamit vraiment jàpp nañ si affaire yi démb bu baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw ma lay jaajëfal bu baax di wolof naan lu duufandoo ci nag bi xajandoowul ci cin bi état de forme bi a yokk macha allah. yaa ngi ñàkk de ma lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay jaajëfal bu baax jéegi. Mm-hmm. waaw di di ko sant baax di ko gërëm. Mm-hmm. waaw di nga xamal ni tamit yow dañuy ngay suivre ba si TikTok bi yi ngay tooñ sa tàntaat yooyu noonu yëpp <laughs> <laughs> waaw temps moom dañu ngay suivre si damay reew damay reew bay bëgg a dee ma ne sama copain moom xam nga sonoon na tàntaam ak waa këram mun naa ci boor mun naa ci boor waaw mun na si biir boor mais yàlla na yàlla dafa jàmm. amiin amiin nga jeune nga te gëm nga gi ngay def. Mhm. waa di ñaan nag euh, àdduna. Mhm. yàlla na fi yàlla def jàmm. amiin yaa rabbal bii ñu nekk yàlla na suñu borom def jàmm. ndam gi démb génnu Sénégal ñu ñëpp ay mhm. doomu dëkk bi lañ. waa di ñaan jàmm am fi di ñaan waa parcelle 1 ba 26. waa di sant bu baax nag monsieur le maire goo Faye borom réaction. di ko sant bu baax. waa ko raqam Mm. MEF DG maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que ñoom dañ may jàppale bu baax a baax a baax. maa ngi sant bu baax mu le maire Go Faye di ko mm. ñaanal élection mairie yi di ñëw parcelle. Mm. suñu borom teg ko si loxoom. mbokk waa mouvement réaction yëpp. waaw di sant bu baax di gërëm ñëpp nag suma mbokku séeréer yi jéegi. aw ma seen fay maa ngi sant képp kuy doomu séeréer maa ngay sant bu baax di nga gërëm. waaw di nuyu waa région de Fatick yëpp. foog nga séeréer mexe sim naa nun gid joka nuun a njag ga'a ne nu ndamtaxama maxey gidma nuun a paax mi Ibou Ndiaye hmm. waaw gidma Diofior o fo xa ɓiten maxey sant a nuun a paax Diofior jegim ndabid nuun waaw Mamadou Dione maxey gidmang a paax hmm. jegim ndabidof maxey gidmang a paax gidmang maxey gidma monsieur le maire Youssou Diom hmm. fu maam waagi joom ɓeexe euh, ten na france mm. waaw fo Ousseynou faagin tout ndeena france fu teexe teen fop maxey gidma den a paax mm. waaw ka ndamtaxam fan sama fans kaga bu joof yoor bi sama gaay ñoom euh, ñoom ñoom jogo baas mm-hmm. sama grand jogo baas aw ma fayam sama mag Ambroise mu ngi Espagne mais mm. suma ma tourné gis jogo rek sama xel day dal day sonn si man démb komba bi daf see sonn sonn sonn wu ne def na ko ci xam nga ñoom ministre ñoom Kangou Jàngar ñoom Ibou Sarr ñoom Kojoon gars yi hmm. nekk Dubaay nii nga mën a profité pour remercier gën dëgg la waaw vraiment ñooñu dañoo sonn si combat bi di cotiser lu ñu wax rek ñu cotiser. Hmm. maa ngeen di sant bu baax di gën gërëm hmm. ñoom Mbaye Senghor aw ma fayam xam nga ñoom tokoo maam waa gi xam nga euh, waa waa waa waa waa Joof yoor yëpp maa ngeen di gërëm aw ma seen fay. di nuyu madame le maire xam nga Kumba. Mm-hmm. Kumba maa ngi koy nuyu bu baax vraiment xam nga di nuyu monsieur le maire euh, Toto. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu Abdourahmane monsieur le maire Toto maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom tamit jàpp na si combat bi bu baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw maa ngi nuyu waa Diofior yëpp di nuyu suma waa koñ waa Sikaab aw ma seen fay maire yi xale yi xam nga waa Diofior yëpp. di nuyu champion yi nekk Diofior tamit ñoom Doudou Sané sama rakk yi ñoom Babou Sarr. Xadafi démb dafa ñëw. Mm-hmm. xam nga indaale ay bagage am Babou Sarr ñëw indaale ay bagage am ñoom maam Fade gars bu ñëw taxaw ma mm-hmm. parce que combat démb bi doon dafa nekkoon combat boo xamante ne défi nga woon mm-hmm. di wax promoteurs yi nag ñu ñëw wax ak ñun parce que bu dee ambiance buñ ko defee day neex saf nañ xorom gars yi bëgg nañu suñu combat du néeg ah te bu ñu bëree day neex bu ñu feccee day neex te am nañ ginnaaw am nañ mboogoo waaw démb gi ñu jënd si ay billets Mm. barki arxuraanu karim ëpp na quatre bogog promoteur bi maa ngi wax en direct mm. jënd nañu mot ay huit cent mille billets mm. ak ñeneen ak ñeneen séeréer yi fu ne gañ jóge ñuy ñëw jëndal seen bopp dugg mm-hmm. kon ñun làmb dañ see bokk gars yi nañ ñëw wax ak ñun jox ñu ay grand combat ñu bëree dem suñu yoon. Mm-hmm. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggagu mbokk internet yi. Mm-hmm. waa wasaare lamb maa ngi leen di nuyu. Mm-hmm. vraiment dañ leen di suivre. ñu ngi di ñaanal di nuyu sa caméraman bi. Adama waaw Adama. di nga gën a ñaanal ji suñu borom defaral nga jàmm. waaw di nuyu suma gars yi ñoom gaa ñoom Ganja Fama ñoom Boka. sam booy yëpp maa ngi leen nuyu di leen gërëm parce que dañuy sonn si man. di sant suma waa koñ di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu waa Joof yoor yëpp maa ngi gërëm ñëpp ji barki alxuraan aw ma gars yi seen fay. Hmm. aw ma aw ma seen fay. waaw vraiment ami Moussa fa ndeb mexe gid ma nga paax hmm. den fu tokoo musa maa ngi ni nuyu hmm. waaw euh, Lamine Diouf maa ngi koy sant bu baax sama grand Lamine Diouf jàpp na tamit si combat bi yëkkati xaalis bu bëri jàppale ma si wax dëgg yàlla maa ngi nuyu sumay mbokk taxaw nañ ma seetaanuñ ma benn yoon parce que combat bu ñu reporté nga def si sa xaalis yëpp ñu jàppaat ko mun a ñëw am taxawaay bi ma am démb. Mm. kon samay mbokk seetaanuñ ma. Mm-hmm. waa Diofior maa ngi di gërëm bu baax a baax a baax. Mm-hmm. autorités yi nekk Diofior yëpp maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm suñu borom may wér ak gudd fan suñu borom def si dëkk bi jàmm. Mm-hmm. muy mag jigéen xaga ak ndaw ñëpp Diofior ñëpp maa ngeen leen di nuyu suma gars yi foofu noonu sama gang bi may toog foofu ñoom Abbas. mbaar ba gars yi maa ngi leen nuyu di leen wax nag maa ngi waaj pour ñëw foofu noonu incha allahu rabbi. parce que am na benn euh, événement bu ñuy organiser foofu noonu. incha allahu rabbi ñu ngi koy waaja jërëjëf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Hmm. wasalaam. jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen wax yu am solo yi nga xamante ni Ibou Ndiaye ëbbali wax na ko ñuy encouragé waat bu baax adversaire am ki ni di ko wax làmb noonu la ñaari ndam mooy dugg waaye benn mooy génn. démb yàlla suñu borom moo tuddoon ni Ibou Ndiaye ëbbali mooy am ndam ak lu mën a xew moom mooy am ndam mbokk yi kon ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. di kontaan ci ànd bu rafet bi nga xamante ni